te teewut élection am na leen résultat yi génn lu fi waay man di def ak lu coow mën a bari bari élection dina am résultat dana génn ñun nag en tant que ay ndaw yi politique suñu devoir danañ ko jël suñu matuwaay danañ ko jël li nga xam ne moo ñu war ci élection yi danañ ko def ba mu mat sëkk mboolem taxawaay bi nga xam ne sëñ bi na seen xel daal ndaw war na koo am ci parteem li nga xam ne amoon na ci législative yi duñ nangu bi yoon moo am fii nii looloo waral suñu woote kon bépp ndaw boo xam ne yaa ngi ci parti bi la ci woo simu kon yow mi doog a ñëw ndaw yi ànd ak yow yëpp ñoo ngi leen di woo bu soobee yàlla danañ taxaw waxtaan xool ba taxawaay lañ mën a am ci élection yi ba cette fois yi képp koo xam ne bëgg ngaa yàq élection yi da nga ñu romb doo ko yàq élection yi loolu mooy déclaration bi nga xam ne ñun ñoo ngi koy def ñoo sant ñëpp di gërëm ñëpp maa ngi wax ci turu ndaw yi waa parti bi yëpp kilifa yi tamit sëñ bi wax nañ ma ko sama ginnaaw ñoo ngi leen di lancé appel lancé wu ma kilifa yi appel sax damay wax ak ndaw yi bu benn kilifa tax ñun ndaw yi ñun ñu xaajaloo parce que ñun suñu avenir moo nekk en jeu au moins am na ñoo xam ne am nañ dara ci premier mandat bi mais ñun suñu avenir mi ngi ci deuxième mandat bi kon deuxième mandat bi ñun suñu bakkan lañ ci war a teg ba mu am te duñ nangu kenn duñu ko yàqal ñoo ngi sant ñëpp responsable yi tamit ñoo ngi leen di woo loolu xam naa ne loolu moom mët mët a wax unité bi daal lañ leen di woo ñu àndandoo fexe ba cette fois yi kenn moo soxla mooy président de la république ñu àndandoo jox ko ndaw jox ko ndam